tey kii bu bu réew mi doon réewum yoon. ku toll nii mm. Mame Mbaye Niang dina fi dikk naan day doon dara. mais Macky Sall moo ñu tooñ rek la Souleymane Jules Diop waxoon ne Abdoulaye Wade dañuy tooñ ku nga ko joxam réew. ku toll ni Mame Mbaye Niang nga ko jox benn responsable koo xam ne nit ku faible la koo xam ne nit koo xam ne nii doonul nit nit nit nit nit ku am crédibilité. Mm. doonul nit koo xam ne sax maanaam boo ko xoolee ay ay charisme moom sax joxul nit ko war a jox benn responsabilité mm. Mame ñan Niang 23 juin bi ñuy kii dafa doon daw. moom Macky Sall mooy fekk nit ku dul dara mu mu mu fexe bañ nit ñi xam ko. lu mel ni ay Khalifa Sall ay ñoom Koro Macky Sall déggatuma ko sax ñu mel ci xeetu ñàkk fayda yooyu rek la Macky Sall di yor dugal ci suñu gouvernement bi moo tax heureusement malheureusement moo tax Sénégal ci ay jafe-jafe la mën a dund. ndax ku mel ni Mame Mbaye nga di ko dugal suñu gouvernement koo xam ne ni waxuma la dara mais éthique zéro moral zéro wax ju ñaaw rek lay wax fii la wax Ousmane Sonko lu ne wax na ko Ousmane Sonko. da ngay sakku si da ngay def nii da ngay def nii yu mel ñaaw yu mel noonu nga di ko dugal ci suñu eh, ah, loolu dafa ñaaw en tout cas le CES moom nee naa sénégalais yi la ma leen wax rek euh, bu soobee yàlla li may wax ma leeral foofu ci la le CES. le CES incha allah taala Macky Sall ñi ngi lay wax nee la buntu kër Ousmane Sonko dañu faa soxlu benn gendarmerie mu ay barricadage kenn du barricade kër Ousmane Sonko la le CES. maam amut loi bu neen dañu war a barricade Ousmane Sonko. mais est-ce que loolu patriote yi mën nañ ci dara. foofu nag laa jëm. mooy wax tuuti mu seen li ñuy wax ci ñeen ñëpp ñu taxaw ci bu ñu nangu kenn ne day barricade kër Ousmane Sonko soit le 14 le 15 fa la xeex bi tàmbalee. Hmm. xeex bi moom fi muy tàmbalee kër Ousmane Sonko ji ñuy barricade moom nañ ko arrêté ndax sàccut reyu nit dañ ko woo mu war a wujji woo Mame Mbaye Niang mu war a wuji amuñu droit di barricade kër Ousmane Sonko léegi nag xeex bi fi fi ñu koy tàmbalee yéen waa yéen patriotes nga xam ne nii loolu dañ koy xeex ndax yoon loi Sénégal mayewut ñuy barricade kër jàmbur nekkut maanaam état de siège ba nga koy tëj mm-hmm. nga tëj këram kenn du fa jaar loolu nañ ko xeex mm-hmm. xeex bi nag nañ koy defee bu ñu leen fekkee nañ leen bàyyi foofu songoog ñoom ci dëkk bi mm-hmm. songoog ñoom ci biir dëkk bi ba dootuñ ko tal ndax kër Ousmane Sonko moom dañoo mëntu da maye kenn mu koy barricade nga xam ne nii leader yi kenn ay Barthélémy Dias kenn du fa mën a dem pourquoi fu ñu ko teg loolu lu waa Sénégal nanguwu ko kon nag ñun injustice bi ñuy xeex li ñuy njëkk xeex ci injustice bi mooy nañ xeex président kër président Ousmane Sonko bu ko kenn barricadé buñ ko barricadé danañ leen songo xeex maa ko wax ndax du yoon maanaam injustice bi dafa ëpp acharnement bi dafa ëpp dafa jéggi dayoo Ousmane Sonko dafa am ay njaboot am ay doom am ay mbokk mbokkam yaa ngi ne Casamance bés bu sëñ nga dégg ñu ne doon nit rey nañ fa nit def nañ fa nit loolu dafa ñaaw fan la ko teg léegi nag li ma leen di wax mbéjum karam borom moo koy fajal boppam kër Ousmane Sonko bu soobee suñu borom nañ xeex ba bu ko kenn barikaadeeti du dëmm du du du du du du agresseur du du lu ñaaw. dañ ko woo mu war a wujji. Mame Mbaye Niang mais dañ ko woo mu war a wujji. Mhm. encore une fois réew mi bu ñu ci bëggee jàmm nañ wax Macky Sall mu delloo si ci. ci ci ci man mu dellu ci maanaam ci ci ci mhm. ci loi mhm. teg dëkk bi ci yoon mhm. justice bi tam ñu def seen liggéey ndax justice métti ni ñuy def ni ñuy asaranew ci kaw Ousmane Sonko ngir politique dafa ñaaw waaw foofu tim bëggoon nañ nga waxaale procureur yooyu yëpp sa def nañ changement ban gis-gis nga am ci changement yooyu yëpp dama ne procureur ku mën a doon réew mi daal képp la ma waxoon ci Ousmane Sonko léegi procureur bu la maa waxoon ne Ousmane ko ko tëj sa ndax réew mi dafa toll foo xam ne nii. Mhm. ñi war a wax dëgg buñ ci waxul dëgg réew mi dana dugg ci gudda te Macky Sall ko dugal ak justice am. justice bi nañ bàyyi politique justice bii nañ bàyyi politique ndax politique li muy li li dafa war a defar waaye warul yàq tension bii métti na réew mi métti na. tension bi métti na réew mi métti na te it nit ñi jaxasoo nañ kilifa diine it encore une fois ma bëgg ngir yàlla ñu teel a jóg ñu teel a jóg ci réew mi. teel a wax ci réew mi ndax itam seen waajur ak seen mag ñeg seen kilifa yéen leen fi bàyyi woon ba ñeen fi bàyyi woon fu réew mi mësaan jóg toll fii ñu jóg taxaw wax ca lañ ca war a wax def ca lañ ca war a wax ba jàmm dellu si ku mel ne alaaji Abdou Assis yàlla na yàlla guddul fanam yokk yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla maanaam taa suñu ci barkeem yàlla suñu borom maanaam euh, euh, yokki leeram wanante kook Seydina Seydi Xaalis Maalik Seydi Xaalis Maalik ndax fu réew mi mas a tàng rek alaaji Abdou Aziz déglu kenn da daan jóg solo dàllam dem wax la war a wax wax kook ñam ko war a wax réew mi dellu ci jàmm kon nag ñi ngi ci woo kilifa diine yi foofa tam ndax fii réew mi jëm insha allahu taala ah am nañ ci responsabilité am nañ ci responsabilité bu rëy rëy rëy rëy responsabilité yooyu nag nekkul ne da koy am rek toog di seetaan ba dëkk bi tàkk nga door a jóg doon ab sapeur pompier ab sapeur pompier moom day fekk lu bëri yàqu te réew mi fii ko Macky Sall bëgg a jëmee insha allahu taala bu ci kilifa yi jugut danañ ne magom danañ ne danañ danañ ne magom lii yaakaaroon nañ ko ndax lépp ci seen kanam la xewe lii Macky Sall def lépp ci seen kanam la xewe doo ñii muy Macky Sall jàpp tëj ci kaso bi ci seen kanam la ñoom ñii Macky Sall jël di di di di ñuy léeg la ñu ne diw réer na yàq nañ alal diw tëj nañ ñi ci kaso bi lépp mu ngi ñu koy toj seetaan daaw bi réew mi tàkk ñëpp ngi toog di seetaan dañu doon dara du am dara du am ba réew mi tàkk ren nag fii ñu jëm moo gën a danse ndax ñaari ñaari ñaar benn benn affaire boo xam ne nii bu ko mëkk sa ne cocc troisième képp su ko waxee réew mi tàkk hmm. te nag ñu ngi koy bàyyi ñu koy nax di ko def ay ay ay ay nu mu tuddati ay meeting mu naan tournée économie ñu koy nax rek hmm. waaye bés bu ne troisième bés bu ne troisième balaa yegg ci mandat réew mi dañ tàkk hmm. te bu boobaa day fekk si lépp wéy na Mm-hmm. waa Benno Bokk Yaakaar nag ñoom damaa yaakaar ne dañoo jéggi liggéey jàmbur wala ñu naan saafara si ndax lii ñu nekkee nii ñoo waroon Ablaye Wade nan ko troisième mandat troisième mandat ñu mel ni sëñ Mbacke Ndiaye ay Souleymane Ndéné Ndiaye ay ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp ñu ngi ne cel am ay responsabilité ci réew mi ba pare seet Macky Sall muy def lu ko neex ba réew mi na tàkk te ñu doon ay ay ay ay ay porteur de voix nit ñoo xam ne si àddina bépp li leen di déglu ñu dem nar a seetaan ba Sénégal nar a dugg ci guta mu mel ni Sénégal amul ay nit ñoo xam ne mën nañoo wax bëgg ko bàyyi kilifa diine itam ñoom tam ñu maroon a jël seen responsabilité loolu rafetut te ñaaw na kon nag. Hmm. nit mu jëppase mu réer. warul hmm. Macky Sall. Hmm. ndax lañ bañaloon Ablaye Wade ci troisième mandat. lu ko raw danañ ko ko bañal. te la fa xewoon warutoon a toog di ci xalaataat mu ciy xewaat. man Ibrahima Gueye nay leen samay mbir li tax mu métti. li tax nit ñi naan sama mbir daa métti dama du fekk dëgg noppi ca man suñu Abdoulaye Mbacke moo Mm. fu ma gis dëgg dama koy wax alxaqu min rabbikum suñu abdulaat bu mbaax ma daana wax ne mm-hmm. alxaqu min rabbikum fa man saafal yumin wa man saafal yakfur mm. dëgg ca yàlla la jógee kum neex nga gëm kum neex nga weddi mm. lii nag man moom lay sama sama taxawaay fu ma gisee loo xam ne nii du yoon danaa ca wax def ca la ma ca war a def di wax nag ne euh, population bi jeunesse bi na ngeen jóg ndax projet bi dafa jar maanaam ci dernier virage lañ toll xeex nañ fukki weer ak fekk xeex na juróomi at juróom benn at ñu ngi xeex ba yegg si ci benn juróom ñetti weer des ci wala juróom ñeenti weer des ci incha allah taala ñun ñaan yàlla suñu borom yeggale suñu projet bi dénk président Ousmane Sonko réew mi loolu nag dañ koy yeggale. yeggale bi ndax dañoo xool ne am na ay nit ñàkk seen bakkan am na ñu tëdd ci kaso bi kon nag lu ngeen taxawoon rek na ngeen ko gën a taxawaat. Mm-hmm. ndax Macky Sall kat xamul buur saay na. buur mm-hmm. dee la xam.